waaw maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ci ne sa tur ak sa sant di am euh, di am mbégte ak dal pour tontu lii nga xam moom ngeen ma laaj waaye mu mel ni rek Pound Sarene ko xamoon démb ak barki démb ak tey xam ne changement bu rëy am na fi te dara warul ko lu dul président Macky Sall ak son maire Maguette Sène bon li nga xamante ne nii moom lañu moom la ñu woote fii tey ci ci ci terrain bi barki démb dañu woté kër chef de village responsable yépp toog fa ak kilifa yi ci dëkk bi ñoom ñi nga xam ñoo doon wax fii tey ñoo nga fa woon am ay représentants dégg nga bi ñu ñëwee dañu poser question yooyu responsable des jeunes ak euh, euh, conseillers yi fi nekk ak conseillers yépp toog ñu poser maire question lotissement bi li Maguette Sène wax ci lotissement bi lim leen tontu mi ngi nii ci téléphone yi man naa leen ko jox ngeen déglu ba mu ñëwee da leen ne ñu ngi le chef de village mi nga xam moo def compassion parce que Pont géographiquement fii ban tan fii géej la fii SAPCO jël na ko amatul fu dëkk bi mën a màggee il forêt de classée la te kenn ku ne xam ne forêt de le président de la république moo ko signer pour ñu déclasser ko Maguette porté dossier bi depuis 2016 di ci doxal Pont il di ci waxal ba yàlla dogal président de la république signé ko bi mu ko signé mu wàcc si ko jaar fépp fu mu ko war a jaarale parce que boo xoolee li taxoon mu xaw a tardé comme pont dafa nekk dëkk dëkk boo xam dafa nekk dafa dafa nekk en phase de développement fépp foo xam ne nii dossiers yi war na fa jaar dañuy dem valider ko ba mu légal yàlla dogal comme ni ko suma nijaay ji fi wax léegi jàlle euh, nawet bi dugg élection yi dëgmal mënatuñ ko lotissé ñu bloqué ko ba équipe bu gagné continuer ko yàlla dogal monsieur le maire gagné bi mu ñëwee mu ne leen lenn moo ci des. nañu ànd ak dal mooy eaux foore ñëw génne limites yi ne fii la foore bi yem lii lañu ñu bu ko defee ñu daaneel garab yi samp borne yi jox ko la jeunesse man soxlawuma ci dara noonu la ko répondre kon nag nañ ànd ak dal xam ne lépp li nga xamante ne nii moo moo ci jafe woon yomb na mais lii ku la ko wax wax ju jeex la mais wax ji nañ ko wax mooy dañuy politique te nekkatuñ ci moment politique dégg nañ ne son excellence dafiy ñëw ñu bëgg a xejamal cere ji te booy sonko yi la oui waaw Nous ñoo def ak euh, def ben clos taxaw ci terrain parce que les gens bind seen banderole ak question yi ñuy posé nit ñi ba ci biir amul sens amul parce que loolu la leen tontu kon tey la dañ leen doon déglu ñun lan la ñaxtu problème mais liñ fi signalé l'autisme, lotissement fi maire tontu na leen na na ci ñun Nous population nous avons fait cette pour taire monsieur le président bon depuis, bi ak responsable dañu nañ tafañ affaire bi nous rapidement mais toute la population est derrière monsieur le maire Maguette Nous, nous ñun taluñu leen sax sen nous yoyu taluñu ñun soxal ba la ba gan gu

booy booy sonko yi ñooy def yooyu